bay door a ku la génne sama yaay ma ubbil bunt foofu it mu fa parce que léegoo léegi tamit ñu ne góor ñi yaruñu yaruñu yaruñu fekk yow ka nga nekkal moo la dimbaliwul ci yar bi am na nag jigéen ñoo xam ne ñoo gën a farlu sax góor ci waaye am na jigéen ñoo xam ne ñooy la seen doom di sol ci lu bon gis nañ ko fa mu koy denc ci seen yeneen kër xarit yi xam nañ ko waaye ñoom ñoo koy noppee kon il faut ñu delluwaat ci yar bi pour ma gàttal yar bi su amut dara du mun a baax yar bi nag li docteur wax la du jël yat di dóor du jëndal ko uniforme du utal ko lu nekk mu dem school déedéet njàng mi ca la dem school ca la waaye yar bi toog ak moom di waxtaan ak moom mbokk mi wax na léegi ne suñ maam yi dañ daan teg ay xale di leen léebal léeb yooyu du woon ay de ay dëgg la woon ay story la yu ñu leen di jàngal pour mu mun a ceeñ seen jikko di la wan ni lii lu bon lii kii ko defoon fii la mu Lilo lu bax li kiko defon fi la mujj way lu tax ñun ñu lolu tay tay yaay yu bari ci bir kër yi so leen waxe lepp sax dañ koy rus xamuñu sax luy lolu li ñu yaakar moy tok ci télé bi te télé bi film mba nga sétane fañ ko liggéeyé yow sax xamuloo ko kooku nekkul ci jikko ka défar film bi mom yonam nekkul ci jikko lu neexal xolam rek lay ut yow nak yow ya wara yar sa njabot éduquer leen ba nga xamni film bi sax ñu ko tal ngir sa waxtaan waaye foo dem gis yaay ju toog wala baay bu toog di waxtaan ak njaboot yi bareetul léegi kon boyal bi ñu boyal xale yi bàyyi leen jox leen freedom ak liberté xaw ma lañ koy tuddee xaw ma loolu moo indi lii yëpp kon nañ leen delluwaat ca euh, ca ca yar ba yaraat xale yi suñ bëggee am société bu baax maa ngi yem fi ngeen jéggal ma. ok jërëjëf Oustaz asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu euh, ñi nekk ci. Euh, programme bi ñëpp ah, yaakaar naa ne oustaz li nga wax lu am solo la ndaxte dafa mel ni waxtaan bi tey li ko ëmba moo nekk dañ am problème dafa mel ni feebar lañ am jàngoro moo nekk ci biir réew mi buñ bugg a faj yaakaar naa ne bala ngaa mun a faj dara foog nga gëstu xool lan moo nekk problème bi te fu mu ne nii ci wàllum problème boobu lañ nekk di te yaakaar naa ne tamit yarin gi ah, bokk na ci problème bi yi nga xam ne yooyu la ñu seetlu moo waral ah, jàngoro gi ñu am tey ci réew mi ndaxte buñ ko seetloo bu baax ni ñoo yaree suñu xale yi dafa ñaaw torop ma jégalu rek man la Ami Kujabi ah, di liggéey ci mbootaay bu ñu ooyee Child Protection Alliance CPA ah, comme ni ma ko waxee rek yari ngi tamit dafa am loo xam ne daf ci manqué mooy ni ñoo yaree ah, bari na ci suñu programme suñ commencé di wax mbiri yar ñu naan man maa jur suma doom yow nga bugg a maa wax naka laa war a yaree suma doom waaye di nga gis ku jur doomam naan xale gi waxal diw nii saaga ko nii nel ko nii te ku ko bu demee ba mag ba miin loolu nga bugg ko ci dindi xam nga ne loolu dina indi problème kon comme nu ko oustaz waxee woon rek banta ci ba muy tooy lañ koy jubante boo buggee xaar mu dem ba mu dëgër nag war koo jubante day dam ah, ñu seetaat seggaat ni ñoo yaree suñu njaboot yi dafa am solo torop ah, man yaakaar naa ne nit ñi léegi ah, dafa dem jamono dem na ba toolu foo xam ne léegi alal lañ gën a jiital da mi aadama te man mosuma toog bi dégg nit naan nit alalay garabam dañ ne nit nitay garabam te loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la ah, képp ku toog di xalaat loolu rek war na laa ah, ci def lu baax ak wax lu baax ah, may waxaat ne rek suñ njaboot yi ne leen seetaan lu ñoo doxalante ak ñoom surtout nag ñun jigéen ñi nga xam ne ñun ñooy gën a uuf njaboot ñi toog waxtaan ak sa njaboot dafa am solo lool. maa ngi tudd Njundu Dramé maa ngi liggéey si bunta bu ñoo wax Child Protection Alliance. man suma olof nag setut bu baax wante dinaa dinaa jéem nit yi dañ dee wax ne xaleel xale bi mooy magi ëllëg man d'accord naa ci loolu wante d'accorduma ci yëpp parce que soo ne ëllëg dañ dee fàtte tey soo xale yi nekkuñ magi ëllëg rek xale yi tey lañ tamit parce que tey moo dee maaga nekk ëllëg su tey baaxut ëllëg du mun a baax am na ku wax ne mu ne soo buggee xam société bi naka la moo nekk élég mu ne xoolal si ndaw yi because xale yi they are always ñooy seetu lañ seetu lañ fo pour société soo nit di dañ war a xam ne xale bi xale yi duñ ëllëg rek tey lañ tamit so tey dafa war a baax torop dañ leen war a yar tey ñu jax leen seen aha ñu am time pour seen xale yi so that ëllëg ak si biir ëllëg xale bi su ne eegee ëllëg mu mun a nekka mag bu baax ñaareel bi dama dama bugg a wax si mbiri tourisme pour nit ñu xam ne tourisme lu baax la balaa ñoo foog ne tourisme dafa bon tourisme lu baax la ah, wante lu xap luy problème bi mooy ne nit yi dañ dee use tourism as a vehicle pour ñu ñu abuse xale yi because tourism si hôtel si lañ dee dal si si motel si lañ dee dal si plane tourism tourism lañ dee dugga seen coaches yi lañ dee use wante suñu xoolee tourism is not responsible for it wante dañ ko dee use as a vehicle so and that's foog naa loolu dafa dafa important trop dañ war a xam ne gan su ñëwee sa sa dëkka sa kër xamut kenn foofu ñun fa fekka ñoo ko dee woon yoon di te te quite a lot of the tourists ñu dee naam ñoo Gambia amin duñ dee xam dara suñ suñ suñ own Gambians ñu nekk si beach bi si hotel si ñoo leen dee wax ne amin soo bëggee jigéen mun na la ko jox hmm. UNICEF def nañ loolu research yu woon na hmm. ñoo leen ñoo in fact man maa ngi ñu ngi amoon benn gan amin Gambian ñoo ko Nyoko ko approach di call ne su buggee sweet 16 de dinañ ko ko jox. so ñooñu xamuñ dara nit yi ñoo Gambian si ñoo leen dee so so man foog naa ne eh? emphasis boobu sax dafa war si from the tubaab to the Gambian himself because moom more intermediary bi more Pimbi, because Pimbi so amu amul su defut lu mu war a def su su woonu tubaab bi yoon. tubaab bi du xam yoon moom su wone tubaab bi ne lii dafa bon ñun suñu aada bi bugut ko suñu diina bi bugut ko mhm. suñu luwaa bi bugut ko tubaab bi du ko def mu wax ko ne soo ko defee su ma la gisee yaa ngi koo def rek na la report si police bi moom du ko def mhm. ni ko imaam waxee amin ñaaka am na ñaaka fu nekk la nekk even tubaab yi sax ñaaka am na foofu wante ku ñaaka values seriously moo ñaaka everything dañ dee wax ne xam xëy na mag lañ wante di nga gis jigéen buy sëy mu am jëkkëri tubaab tubaab bi ñëw mu introduce jëkkëram ne brodaam la they also told us in one workshop ne am nañ gis nañ few cases yu nga xam ne jigéen bi jigéen mu am am jëkkëri tubaab jëkkëri tubaab bi ñëw mu introduce jëkkëram ne brodaam la jëkkëram ko ñuul ki ah jëkkër nit ko ñuul non non non dam nañ jëkkër wante mu ngi am am fari tubaab so fari tubaab bi ñoo wante si kër bu ñu nekk tubaab bi moo ko jënda moko moko moo ko jëndal jigéen bi. Mm-hmm. mu ngi faa moom ak so tubaab bi ñoo visit jigéen bi introduce jëkkëram te jëkkëram nangu ne moom broodam la. te nekkul jëkkëram so all lu lii yëpp ñu ngi ñu ngi xew si ndëkk bi for me it's just about values. because xam nga xale bi xale bi wan wala nit su amut value of honesty of respect I mean nga nga nga bugga sa boppa of dignity because dignity mooy mooy human being yow soo so soo sànnee sa dignity awee rek sa sa sànni nga yëpp mus naa am meeting at jigéen ñi ma ne leen ne ñu seet soo ah, garden wala nga dem Sukuta garden bi nga gis jigéen nu ñoo toppatooyee seen seed seedlings yi di nga try nga the right amount of water moo faa nekk the right amount of manure moo faa nekk the right amount of sunlight nga bugg a mu am ñeneen ni sax dañ dee dañ dee dañ dee fanaan si garden bi gis na dal rab yi ñëw ñu destroy seen seedling si ma ne leen ne su nekkee ne waajur bu nekkaam nekk na gardina for your child nga nga ne sa sa sa child has the the right amount of of values of protection of guidance I mean, uh, do, do, all this problem, Uncle Babakar, Ben story, Marie Don Demba. xale bi ah, daf dañ ko téye ne dañ ko rey parce que dafa sàcc soo nit yi gaada ak Georges xale bi mu ne leen ne dama bugg a ngeen oyal ma suma yaay dama ko bugg a wax dara mooy last wish bi soo yaay bi ñëw indi ñu indi ko xale bi bugg a dee si noppam bi mu xayma dee la mu mu maata nopp noppam bi ba mu génne ko hmm. dog ko it yi mer yow yow yow kii kii sa yaay la lu tax gaa yi def lii kii mu ne leen ne bu ma doon ndaw su ma demee sacca ma indi ko daf dee jël mu ree mu ne ma ne yow xaleel nga duñ la téye duñ la def dara even suñ la téye sax dañ dañ laa bàyyi mu ne leen ne moo ma dugal si problème bi Hmm. parce que su nekkoon ne bu ma nekkoon xale su ma sàccee ma indi ko mu dóor ma walla mu ne ma ne delloo ko sàcca pour sàcca